mbokki jullit yi ñu ngi leen di ziara di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla tabaraka wa taala jotaay bi yal na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu di dalal ñëpp am ni ko doomu ndey bi waxee sunu ambassadeur man maa ko nommé woon fii ci Gorée léegi wax na ne conférence bi am na 26 ans alhamdulilah waaye ci biir waxam dafa wax joo xam ne loolu tukulóor yi naan soxaale ñawi yo nanɗe celli sohaala ñawi yo nanɗe celli su wax feebaree ne dégg wér daf ñoo junju ci loo xam ne bëgg naa nit ñi def ci benn taxawaay balaa may jox Cheikh Oumar yàlla ñu ko yàlla fee yu ñu ngi bég ci moom bu baax a baax parce que ngi gis ci liggéey bi. li mu wax léegi jaale ñu imaam Alioune Badara Ndao foofu mu jaar ñun ñëpp foofu lañ bëgg a jaar ndax alquran moo ne woon minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi foofu lañ bëgg a jaar ñun ñëpp nekk ci waar wi ba ëllëg bi damm ci waar danañ ko yàlla defal beneen bi li may wax. mooy chaque jour nañu moytandiku di ñëw conférence ci biir conférence bi ñu koy dab bi naan hey déglu leen war nañ dépassé loolu ñun ñëpp war nañ mel ni sahaaba yi daan mel ci kanamu yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa ak ci biir ak sahaaba yi waa siira nee nañ yonent bi su daan wax ak sahaaba yi pittax yi dañuy tag ci seen bopp yi te du ñu ne pittax yi tag nañ ci seen bopp ndax jox nopp gi ñu ko doon jox nopp loolu foog ñu bàyyi ko xel ñu jox seet bi nopp bi nopp yi ñu déglu bu baax a baax liñ fi indi incha allah mu leeral ñu ko ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu dégg ak topp tafaddal mashkuran maajura alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi al amin nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julitee sëlmal ci sangu-sang yi suñ yonant muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. <clears throat> ñu ngi am mbégte bu baax ñëw ci Gorée ci li nga xam ne mooy waxtaan bi nga xam ne dañ ko fi amal at bu nekk ren di tolloog 11 septembre 2022. ñuy nuyu Chérif bu baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dëgëral ci liggéey bu am solo bi muy def di nuyu Oustaz Saïd di nuyu li nga xam ne mooy. ñi nga xam ne ñoom lañ ne bés bi muy opération Mour Say Thieur ci jiital Ismaïl Madior ak soxna Ndeye Fat Fall euh, waxtaan bi temps bu bëri dem na hmm. man 15 heures 17 heures lañ waxoon ma préparé lu muy dem 2 de temps 2 temps yi Chérif jël na ci 35 minutes xanaa <clears throat> léegi li mën a am rek mooy li ñu tuddee xututul arida al xututul arida muy les grandes lignes donc def xulaasa tënk ci liñ préparé woon waxtaan bi li ci préparé mooy mafhumul fitna mooy dégginu fitna compréhension tënku wuruduha fi alqurani wa sunna rot fitna rot ci alquran ak sunna ak ay maanaam maratibul fitna degré yi nga xam ne mooy degré fitna wa anwaiha wala wa anwaauha bokk na ci ñeenteelu tomb bi mooy wasailu ishaalil fitna mooy yi mën a fitna juróomeel bi mooy athaarul fitna mooy effet yi fitna yi def ci individu bi ak ci société bi juróomeel bi mooy wala juróom-benneel bi mooy tom bi mujj mooy al wiqaayatu min al fitan naka la ñuy woo naka la ñuy euh, suñu bopp ci ay fitna mbokk yi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni taawadu billahi min al ma dahara minha wa ma batan alimam muslim génne ko da leen muslu ci fitna li ci feeñ ak li ci nëbb kon naouzu billahi min al ma dahara minha wa ma batan ñu ngi yàlla musal ñu fitna lu ci feeñ ak lu ci nëbb lan moo tax fitna bu la jàppee fitna bu la jàppee mën ngaa jaay sa ngor mën ngaa jaay sa diine mën ngaa fen mën ngaa rey nit mën ngaa sàcc mën ngay julli tisbaar jaawale ko timis mën ngay tiim di lekk li ngay lekk safut dafa saf xorom wala dafa saf suukar dootoo bàyyi xel lan la saf li ngay naan xamoo lu muy saf mën ngay julli doo concentré wu mën ngay sangu di waxtu mën ngay dox ci mbedd mi di waxtu lan la mooy fitna moo la jàpp moo xam fitnay diine moo xam fitnay àdduna bu ci nekk léeg-léeg day jàpp nit ki mu amoon yaram jeex nga jàpp ni dafa feebar fitnaa ko jàpp mu xeesoon ñuul nga jàpp ne dafa feebar fitnaa ko jàpp mu jékki-jékki kanam gi nga xamoon ci moom mu changé jékki-jékki gaaw a mer tàng diine gaaw a xeex gaaw a gaaw a ñeññi fitna moo ko jàpp hmm. fitna baaxul bu téyee nit da koy soppi soppi diineem mën na ko soppi ngorom mën na ko fitna mën naa tax nit tubbi génn ci lislaam murtad nekkaat yéeféer hmm. fitna bu jàppee nit mën na kaa yóbbu foofu yal nañu yàlla musal ci fitna fitna mbokk yi buñ koy xool fiñ nekk la am mooy fitna fii ci àdduna borom xam-xam yi comme ni ko Ibnul Qayyim di waxee addunya daaru balaa in wabtilaa duniya daaru nat adduna la aduna kërug nattu la kërug test la kërug jafe-jafe la waxtibaar wamtihaan dañ la fi test di la nattu di la seetlu borom bi subhanahu wa moo def aduna bi bëri ay fitna fitna yi wuute te nekk ay fitna yoo xam ni yu métti yu xool yu jéggi dayoo ñun ci suñu diine fitna dafa am relation ak suñu pas-pas parce que dafa bokk ci arkaanul iman mooy ponki ngëm moo al imaanu bil yawmil axir mooy gëm bés penc gëm bés penc dafa am ay alaamaat dafa am ay màndarga am mandarga yu ndaw ak yu mag mandarga yu ndaw yi ñetti xaaj la séddalikoo yu ndaw yi nga xam ne jàll na ba pare comme yonent bi feeñ gi mu feeñ judd gi mu judd yónni gi ko yàlla yónni génn àdduna gi mu génn aduna yooyu màndarga yu jàll la ba pare am màndarga yoo xam ne ñu ngi déroulé ñu ngi déroulé di am te jeexaguñ mooy dee gu bëri njaalo gu bëri feebar yoo xam ni kenn mënu ko saafara feebar yoo xam ni kenn xamul lu koy indi ci épidémie yi am ci monde bi yooyu nekk ay mandarga yu ndaw yoo xam ne mi ngi am mu am mandarga yu ndaw yoo xam ne feeñagut yooyu bu feeñee mandarga yu mag yi door a ñëw kon mandarga yu ndaw yu jàll ak yoo xam ne ñun ñu ngi koy dund moment bi ak yu ndaw yu ñëwagut yoo xam ne yooyu bu jeexee yu mag yi door a ñëw kon gëm bés penc dafa bokk ci li nga xam ni mooy arkaanul iman léegi bés penc dafa bokk ci alaamaatam mooy kasratul fitan mooy fitna yu bëri dafa bokk ci mandarga yi bés penc mandarga yi nga xam ne mandarga yu ndaw yi la mooy fitna yi dafay bëri lool ba jéggi day yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ci xadis bu wér bu nekk ci buxaari ak muslim abu hurayra anas abu saïd ak ñeneen nettali ko mu ne ak jamono ji day dem ba yàgg day gën a jege jamono ji gën a gaaw da dem ba yàgg weer dafay mel ni semaine semaine day mel ni benn fan at day mel ni 6 mois te loolu ñu ngi koy dund weeru koor bi mu jàllee yàggul mook tabaski balaa yàgg ñu ne la weeru koor mi ngi ñëw tabaski mu ngi ñëw école bi mu tëjee yàggul mi ngi tijj bu tijjee boo nee départ na ñu ne la école tëj na jamono day gaaw ba jéggi dayoo nekk ci benn vitesse boo xam ni vitesse bu extrême la da nga koy xool doo comprendre lii xew lan la nit ñi di dem di gaaw a màgget xale bu ndaw nga doon gis fii mu am doom ñu ne la déet ñu ne am na sët aduna bi di daw ci vitesse bu jéggi dayoo te nit ñi duñ ci rendre compte loolu nekk loo xam ne lu jéggi dayoo lay doon mais nit ñi dañuy sàggane loolu ah yooyu dañ koy sàggane kéemtaan yooyu nee na yataxaarabu zaman wa yuqbadul ilm xam-xam ñu koy ngëpp mooy xam-xam di dem borom xam-xam yi màgg ji disparaître benn par benn di dem léegoo-léeg nga toog ñu tàggale borom xam-xam nga ne ndeysaan pourtant jàmbaar la woon doo ci bàyyi xel quelques jours ñu tàggewaat la keneen quelques jours ñu keneen noonu borom xam-xam dem borom xam-xam mag yi bu ñu demee ah problème day am mooy xam léegi am na limite mooy ñu mag ñi dem nañ kon ñi fi nekk it même bu ñuy am nañ xam-xam xam-xam bi limité wu na léegi limité mooy xam-xam léegi gën naa néew niveau bi mu amoon àggatu fa dafa gën a wàcc dafa gën a faible jamono ji dem xam-xam di gën a wàcc loolu bu yàggee ay ñu réer ñoo fi nekk ñu leen di laaj ñuy ubbee su ko defee loolu mën a yàq lu bëree bëri yonente bi alayhi salatu salaam yému fa nee na wa yuqbadul ilm xam-xam dañ koy ngëpp mu dem nee na wa tadharul fitan fitna yi daal di feeñ fitna yi bu feeñee nag nee na wa yulqa shuh nay tasaaroo nay gu jéggi dayoo dafay tasaaroo mooy xaalis day bëri da ngay dégg ay milliards dégg ay euh, euh, trillion nga koy dégg di dégg ay billiards mais ànd ak loolu nit ñi dañuy dee ci xiif risque feebar du am lu mu jëndee ordonnance am ku ñuy génnee ci wàllu location te pourtant ay milliards ngi fi ay milliardaires ngi fi ay millionnaires ngi fi mais kenn du ko jàppale kenn du ko taxaw nay gi tasaaroo lool ci biir société yi nit ki day nay ci boppam nay ci li nga xam ne mooy ay moroomu nitam yemu fa moom alayhi salaatu salaam mu ne wa yakthurul harj dee daa di bëri lool baatu harj bi mu jëfandikoo saxaaba yi miinuñu ko xaalu ñu ne ko wamal harj waaw loo jublu ci harj mooy lan qaal alqatlu mu ne mooy dee yenn borom xam-xam firi alqatlu mooy rayante mbokk yi moment bi ñuy dund suñ jamono ji rayante yi ne ci kaw suuf kenn xamul nu mu toll demal sud soudan demal syrie demal iraq demal afghanistan demal pakistan demal fi nga xam ne tey mooy Ukraine ak Russie adduna bi foo dem tàkk na nit ñaa ngi dee chaque jour ay milliers waxuma ay cent waxuma ay centaine ay milliers wu doomu aadama ñooy dee par jour ñii avion bu daanu la ñii train bu daanu la ñii bato bu suux la ñii gaal bu suux la ñii tremblement de terre la ñii tsunami la ñii volcan la ah dee gu bëri gu jéggi dayo par jour chaque jour nga koy dégg boo suivre média yi rajo télé boo koy suivre dee gi par jour léegi ay milliers doomu aadama ñooy dee fii ak suba boo doon topp information yi ñaata bato ñoo daanu wala ñoo suux avion bu daanu ay oto yu mbëkkante ñaata accident ñoo am biir Sénégal ci yeneen réew yi ci Afrique ci monde bi kenn xamuñu toll chaque jour fii nga dégg accident yu bëree bëri yow da ngay dégg accident yi yaa ngi continué di añ di seeñu say ginaar doo ci sax attention doo ci bàyyi xel te déggu bëri la li ñu wax ci accident ay nit ñu bëree ñoo dee mais yow génnewu la yëngalatu ko miin ko ba da ngay seeñu sa ginaar yóotu sa kaasu ataaya naan wala sa lu sedd daal di naan doo ci bàyyi xel ah ndeysaan yàlla na yàlla yërëm dem na foofu la la toll ci làmmiñ bi àggul ci xol bi loolu tey moom la ñuy dund wa yaksurul harj kon dee gi dafay bëri lool ba jéggi dayoo yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu nee harj saxaaba yi ne kon mooy lan mu ne mooy ay xatlu mbokk yi ñaata ngay tàqoog nit léegi ngeen ànd ju liggéey nga yeewu suba teel bi tàggale ko ne la diw dee na jéegu gaaw te bett nga ne non xanaa da ngeen jum pourtant diw bi ñoo julleendoo maa gunge ba seen buntu kër wala mooma gunge ñu ne leen léegi-léegi nit génn kër gi tàggoo ne maa ngi liggéey ñu wootale ne la diw dafa dee ci bureau bi nga benn waay ne la xëy na maa ngi liggéey dee benn waay xëy na maa ngi tukki ñu woo la téléphone ne diw dafa accidenté xoolal déegu bëri googu gaaw googu déegu bëri te gaaw loolu moo alxërju te actuellement moment bi ñu dund dee gi dafa bëri mais dafa gaaw li ci nit par jour kenn xamu nu mu mais gaawaayu dee gi dafa jéggi dayoo mais nit ñi bàyyiwuñ ci xel mbokk yi euh, fitna tey tax na tey ci kaw suuf ay réew tàkk na ay nit ñu ngi réfugié di daw di làqatu ci ay dëkk buub seeni bagage di daw fitna moom moo ko waral fitna tax na am na dëkk yoo xam ne place ñu doon jaamoo yàlla toj nañ ko muy jàkka yaak jumaa ya kër ya taal nañ ko fitna tax na euh, ay réew tey yu dend ñu ngi xeex ay quartier ñu ngi xeex ay dëkkandoo ñu ngi xeex ay xarit ñu ngi xeex ay mbooloo ñu ngi xeex loolu lépp fitna moom moo ko waral loolu moo tax ah jaadu na kon ñu xam lan mooy fitna sabab yi lan la ak nag ak li nga xam ne naka la ñuy def ba daal di ciy mucc mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñoo xiirtal ci ñu gaawantu ci jëf-jëf yu baax yóbbal yóbbal gu baax balaa fitna yi di tàkk dee teew dootoo ko mën borom bi subhanahu wa taala daal di wax ni yow yawma yati baadu ayati rabbik laa yanfau nafsan imaanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaaniha xayra borom bi daal di wax ni euh, bés bi nga xam ne lenn ci aaya yàlla yi day feeñ mooy aaya yi nga xam ne day feeñ wane ne ah adduna mi ngi jeex de nee na bés boobu laa yanfau nafsan imaanuha amul bakkan boo xam ne bés boobu jóg nga di gëm yàlla mu lay jëriñ lu tax mooy gëmoo yàlla parce que da ragal yàlla mais da ti moo tax nga ne xaaral ma topp digle yàlla yi euh, du la jëriñ lu dul ne bakkan boo xam ne fàgg woon na ngëm yàlla gu baax lu jiitu jafe-jafe yooyu di génn alayhi salaatu wasalaam ci xadiisu abu hurayra bi ne ci muslim mu ne baadiru bil amali fitanan fitanan ka qitaai leylil muzlim mhm. gaawantu leen jëf-jëf yu baax ay fan a ngi ñëw ay fitna day ñëw ba mel ni dogitu guddi gu lëndëm fitna yooyu nit ki da ciy xuus mu mel ni guddi gu lëndëm nga naan est suba teel dina am maanaam fitna gi ndax danaa ci génn nee nit ki day toll ci fitna bi ba naan yusbihu rajulu muminan wa yumsi kaafira da ngay xëy nekk julit balaa ngoon fitna gi jàpp la ba nga nekk yéefér wa yumsi muminan da ngay gontu nekk ku gëm yàlla wa yusbihu kaafiran fitna yi jàpp la ba nga yeewu weddi yàlla yabiu diinahu bi aradin min addunia da ngay jaay sa diine ci poñetu aduna ndax fitna yi la jàpp da dem ba wax loo gëmatul wala li nga gëmoon nga waat ko ndax ndax fitna yi la jàpp day tax nga jaay sa diine jaay li nga xam ne moom mooy sa ngor mbokk yi fitna ci gàttal taarifaat yi bëri na alxaafid ibnu xajar dane hi ibtilaun xalla ala fardin aw mujtamain fi umuri diinihim aw dunyaahum nee na mooy jafe-jafe boo xam ne dafa wàcc ci kenn ci nit ñi wala mu wàcc ci ab société aw askan aw xeet seen mbiru diine wala seen mbiru aduna nee na loolu mooy fitna fitna rot na ci alquran ci ay aay yu bëri yu ko saxal dëgëral ko borom bi nee na wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xassa na ngeen mooy di fitna boo xam ne bu ñëwee di yem ci ñi nga xam ni kese ñoom ñoo ko sooke waaye mën naa mën naa dem ba ci ñeneen ñi li ñuy wax ne moytul ñax goow mën naa lakk ñax gu tooy wa alamu anna allah shadidul iqab te ngeen xam ne yàlla ko tar bëggal la bu dee fitna ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalam xadis bi mu wax sànq doon na wax ne taawadu billahi min alfitani ma dahara minha wa ma batan deen ñaan yàlla mosa leen fitna yi feeñ ak yu nëbb parce que léegi la nit ki fitna yi feeñ lay gis fekk am na yu nëbb yoo xam ne mi ngi ci moom te feeñagul bu feeñee àdduna tukki alayhi salatu wasalam ya Aïcha nee na radiallahu anha nee na yonente bi alayhi salatu wasalam daana muslu ci fitna kaana yad'u fi salaati bi hadihi alkalima daana wax ci julli ci baat yi allahuma inni audu bika min adabi alqabr yàlla yàlla nga musal ci mbëggalum bàmmeel wa audu bika min fitnati almasihi dajjal yàlla nga musal ci fitna yi masihu dajjal wa audu bika min fitnati almahya wal mamat yàlla nga musal ci fitna yi dund ak fitna yi dee dund daa am fitnaam dee dafa am fitnaam dundu euh, euh, euh, fitna yi dund mooy jafe-jafe yi ngay am sa diine ak sa àdduna waaye fitna yi fitna yi dee mooy nga dee ñu lay mbugal sa bàmmeel moo tax mu firee ko Euh, a'uuzu bika min fitnatil xabr musal ma ci mbugalum bàmmeel parce que mbugalum bàmmeel nga dee ñu nga dee am ko kooku fitna la ci dee mbokk yi fitna yi ñaari xaaj la ko borom xam-xam yi xaaj mooy alfitan ad diiniya ak alfitan ad dunyawiya mooy fitna yi nga xam ne sa wàllu diine la fitna yi nga xam ne ci wàllu diine la borom xam-xam yi ibn alqayim bi mu koy tudd dafa ne mooy ibtilaun ibtilaun min allahi lil muslim xaasatan duna al kaafir mooy nattu gi yàlla yi nattu jullit bi bàyyi yéeféer gi mu ne loolu nag suñu borom da koy nattu ngir teste ko xool ak dëggoom xool ak wóoram xool ndax vraiment diineem jaral na ko yàlla jaral na ko lislaam jaral na ko alquran jaral na ko sunna yonent bi alayhi salaatu salaam jaral na ko mu ne loolu moo dëppoog li borom bi di wax ni alif laam a ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun mu ne ndax nit ñi dañuy yaakaar ni dañuy wax ne gëm nañ te duñ leen duñ leen fitnaal dama fitnaaloon ñi leen jiitu pour xam ñi dëggu ak ñi nga xam ne dëgguwuñ Suhayb euh, euh, radiyallahu anhu mu ne yonente bi alayhi salatu salaam ne ne li amril mumin yéemu naa ci mbiru julit bi inna amrahu kullahu xayr mbiram yëpp yiw la mbiram yëpp tuyaaba la wa laysa zalika li ahadin illa lil mumin te kenn amu ko loolu julit bi gëm yàlla ne ci lislaam in asaabathu sarra shakar su ko mbégte dikkalee mu sant yàlla nee na fa kaana xayran lahu mu am ci yiw am ci tuyaaba wa in asaabathu darraa sabar fa kaana xayran la bu ko tiis nat natu tolof tolof jafe-jafe métit dalee mu muñ ko yàlla tax ñu bindal ko ci tuyaaba kon julli rek moo am loolu lu baax bu ñëwee nga sant yàlla am nga tuyaaba métit ñëw na fitna tege na sa kaw nga muñ ko ñu bindal la tuyaaba mu ne julli bi rek ko am xadis boobu alimaam muslim moo ko solo fitna yi aduna yi mooy jafe-jafe yi nga xam ne day tege ci sa kaw yow ci sa bopp wala mu tege ci sa njaboot wala mu tege ci sa alal bu dee sa kaw moo yàlla nattu la teg ay feebar yàlla nattu la teg la ay feebar nga gumba wala nga tëx wala nga muuma wala nga lafañ wala nga am problème ci wàllu loxo yi wala nga am feebar bu nekk sa sa yaram tere laa dox say activité wala tere laa jaamu yàlla normal fitna goo xam da koo teg ci li nga xam ne mooy sa njaboot may la soxna su bon may la yaay ju bon may la papa ju bon may la doom ju bon joo xam ni bu subaa ñu convoqué le tribunal ginnaaw suba ma nga kaso sàcc na fii toj na fii moo rey nit moo agressé moo jël moom lañ tuumaal kooku nattu la ci sa njaboot mu nekk natt goo xam ne da ko teg njaboot gi mais ci côté wér gi yaram gi la kooku nattu la léegoo léeg sa alal la dañuy da nga am alal ñu sàcc ko da am ay magasin mu lakk da am ay cantine mu lakk da ay oto ñu accidenté da nga am ay matériel mu yàqu ainsi de kooku nattu la ci wàllu alal bul daanihim wala sa réew da dëkk am réew réew mi bokk ci réew yi nga xam ne mu ëpp caaxaan mu ëpp mooy yàlla mu ëpp fo mu ëpp kannang kannang kooku nattu la mm-hmm. yàlla mënoon na laa def nga am dëkk ci réew réew yi gën ci réew yi mm-hmm. mënoon na laa nattu nga dëkk màkka wala nga dëkk Médine waaye yàlla natt la dëkk boo xam ni dëkk ba la fa a dox mooy LMD lit musique danse loolu moom moo fa dox su ko defee loolu jafe-jafe kooku nattu la bokk na ci mooy natt goo xam ni da koy wàttee ci biir askan wi mooy ay tremblement de terre yi ma waxoon sànq wala ay inondation yàlla nattu la te ku ci dëkk xam ko yàlla nattu nga inondé sa kër inondé wala sa quartier inondé ngay xuus ci ay ndox say lal nekk ci ndox nga bëgg a togg di togg ci kaw ay terrasse danga xam dëgg-dëgg nattu la jafe-jafe la wala yàlla nattu la nga nekk ci épidémie comme li fi xewoon ci wàllu Covid bi nit ñi nekk ci li nga xam ne mooy épidémie ñun ñëpp nekk ci fitna nekk ci coow restreindre li nga xam ne mooy génn doomu aadama yi bu 20 jotee ñu ne la toogal sa kër. Mhm. nga war a doxi ñu ne la déedéet lan moo ko waral feebar. koy waxal boo takkul masque mu sori la jël distance. Mhm. wala mu takk masque wala nit ñi kenn nuyootul kenn nit ñi di daw boo rombee aw nit ñu taxaw wala nga taxaw ay nit bëgg a ñëw groupe nga daw bàyyi leen fi. loolu wax dëgg yàlla nattu la fitna la léegoo léeg mu nekk ay xeex. ay xeex yu dox diggante ay réew. nekk ay guerre yoo xam dafay dox diggante ay réew wala léeg-léeg yàlla natt nit ki sax mu feebar feebar boo xam ne feebarum xel la wala mu dof wala mu tàggoog sagoom ila axir kooku ci nattu aduna yi métti yi ci la bokk mbokk yi maraati bu fitna martaba yi mooy ba ca jiitu jiitu mooy fitna goo xam ni borom bi subhanahu wa taala moo la ko teg directement daam fitna goo xam ne yàlla moo la koy tegal boppam am goo xam daf la koy teg daf la koy teg waaye am fu mu koy jaarale kooku indirectement la googu mooy nattu la yow julit bi ci ay jafe-jafe yoo xam da koo teg sa kaw léegoo léeg euh, xool ba xam ndax da ngay tuub dellu ci yàlla wala ay tolof-tolof yi yi la dal dafa fekk ne daa am mbir yoo xam ne yaa ci taab bi borom bi bañ nga faatuwaale ko yowmal qiyaam yàlla teg lay nattu pour nga tiit dellu ginnaaw loolu borom bi di wax ni wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kasir nee na lu leen dal ci musiba yenn yi yéen ko teg seen bopp man yàlla ma ma dumaa leen ko te baal leen lu bëri loo xam ne toppeewu leen ma toppee toppee wu ma leen ko bokk na ci mooy fitna goo xam ne fitnatul xalq la. Mhm. mooy musiba yi nga xam ni dafay dox diggante nit ak nit. mooy nit ñëw rey moromu nitam kooku fitna la fitnaal la kam rey fitnaal na fa même amaana moo fa yore woon dépense moo doon liggéey ci kër gi moo fa tekki woon moo nekkoon ki nga xam ne moo doonoon seen wéeruwaay problème yi ñu am moo koy faj buñ jaaxlee moom la moo doonoon seen kilifa benn waaye ñëw jam ko paaka dóor ko bal wala mbëkk ko mu dee wala indil ko jafe daal boo xam ne faatu na wala bokk na ci mooy ñu li nga xam ne mooy sa moomeel moom sa terrain benn waaye siif ko teg ci loxo nga wax mu ne la demal fu la neex fexe ba lijjanti ëpp la relation ëpp la loxo bu gudd lijjanti terrain bi daal di koy bindaat ci turam defaat ko ci turam daal di koy moom nga jaar fu nekk mënoo ci jot suñu jàkk ji am na ku ko nangu def ko kër nee na seen jàkk am na ku ko nangu def ko kër sa Saïd wax na loolu wala am na ko ko bëgg a nangu def ko këram kon fit na yaa ngi noonu ci la bokk bokk na ci mooy lakk nit koo xam ne ngay toog sa kër lakk wala nga toog sa alal lakk wala sa moomeel lakk bokk na ci aussi mooy euh, li nga xam ni mooy euh, euh, yàqu-yàqu yi nga xam ne day am ci li nga xam ne doomu aadama dañ koy dunde tool yuñ bay wala ay jardin yuñ bay ay fruits jékki-jékki suñu borom ni ay gunóor yónni ay insectes ñu jaar fa lekk ko te mënoo ci dara wala jékki-jékki indi ngelaw bu fa jaar yàqu ko wala taw bu bëri bu ko yàq su ko defee mu doon xasaara goo xam ni ci kaw nit ñi lay tàbbi mbokk yi fitna yi nga xam ni mooy fitna gii ma tudd mooy façon bi mooy yi nga xam dafay bi ci diggante nit ñi ay xaaj la bi ci njëkk mooy mooy fitnatul xalq bi ci njëkk mooy fitnatul naas fi ma baynahum fitna koo xam ne day dox diggante nit ak nit loolu bokk na ci mooy xuloo ak moom wala saagante ak moom wala xeex ak moom bokk na ci nit koo xam ne réewam dañ koo jël exilé ko daal di koy génnee réewam kooku fitna bu dox diggante nit ak nit la wala ñu toj ko ci kaso fitna bu dox diggante nit ak nit la comme yonent yàlla Yuusuf ni ñu ko defoon ay nit ñoo ko jël sànni ko ñoo ko jaay ay nit ñoo ko jël tëj ko kaso kooku fitna boo xam ne yàlla dala koo teg de waaye da koo jaarale sa moroomu nit mu teg la ko bokk na ci mooy fitna fitnatu shayatinul jinn wal ins mooy fitna yoo xam ne suñu borom da koo jaarale ci rab yi rab yi nga xam ne dañuy jàpp nit daal di koy fàdd daal di koy téye dofloo ko loo ko di ko def loo yoo xam da koy tàggaleeg sa goom kooku fitna la boo xam ni jógewul ci nit ak nit waaye fitna la boo xam ne ci diggante mbindaafoon ak mbindaafoon la mooy jinne wala rab la ak li nga xam ne mooy moromu doomu aadama bokk na ci mooy fitnatul naasi lil bahaim mooy fitna goo xam ne doomu aadama yi ñoo koy teg bàyyi may mooy sëf euh, euh, bàyyi may lu ñu àttanul ci sareet wallahi léeg-léeg nga romb circulation bi nit takk sareet fas euh, teg ko gaz wala teg ko ay bagage yoo xam ni sa day jeex wallahi mi ngi fitnaal boppam di fitnaal li nga xam ne mooy bàyyi ma bi nga xam ne moom la takk parce que bàyyi ma bi yàlla moo ko tàggat pour ñu utiliser ko mais utiliser bu ànd ak yërmaane hmm. irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi ci kaw suuf ki ne ci asamaan daal di leen di yërëm kon bàyyi ma yooyu léeg-léeg dañ leen di fitnaal fitnaal ci sëf leen lu diis fitnaal leen ci bañ leen a jox ñu lekk di takk sareet subaa ngoon guddeeg bëccëg doo ko jox temps bu mu lekk doo ko jox temps bu mu naan hmm. wala li muy lekk sax baaxul léeg-léeg nga xañ ko lekk yemoo fa léeg-léeg nga mbugal ko nga gis koo xam day war yor fasam ci tali bi wala mbaam di ko dóor yi façon dóor yoo xam ni moom ku ko dóoroon genn wàll gi mu dee mu téye ko di ko door mala gi mala gi mënta wax mënta yuuxu amul fu mu ko joxee waaye sunu borom gëmmul mi ngi gis loolu waw xol la ñàkk diine la réere diine la ak ñàkk xam bokk na ci mbokk yi bu dee façon fitna yi muy anwaul fitan wa asnaafuha mooy fitnay wax wallahi am na koo xam ne làmmiñam fitna la ci moom làmmiñam fitna la ci société bi sonal na boppam sonal la nit ñi moyul boppam jàmm mayul nit ñi jàmm làmmiñam kenn mucc ci yaayam mucc ci baayam mucc ci frèram mucc ci sëram mucc ci ndijaayam mucc ci dëkkandoom mucc ci borom xam-xam bi mucc ci amul kenn ku mucc ci làmmiñam làmmiñam lu mu xam ci lu bon teg na ko ci nit kenn muccul ci làmmiñam kàddoom fitna la ci boppam fitna la ci moom kàddoom fitna la ci moom da koo fitnaal waaye kàddoom fitna la ci jaamu yàlla yi sosal na kii yàq na deru kii rambaaj na ci kii yàq na diggante ñaar ñii yàq na deru kii waxal na kii lu amul sosal na kii ila axir yi moom ci yooyu rek làmmiñam tuddul yàlla jàngul alquran diglewul lu baax terewul lu bon làmmiñam poson la làmmiñam safara la làmmiñam musiba la ci nit ñi lii rek la fi nekkee kooku ku daggoon làmmiñ bi sax moo gënoon ci moom ndax làmmiñam noppal ko mais noppal jaamu yàlla yi kon loolu bokk na ci li nga xam ne mooy fitnal qawliya mooy wax luy taal diggant ay doomu aadama yàq diggante ay nit waaye yàq der sos ramba jëw wax lu dul dëgg loolu rek la làmmiñ wi liggéey loolu moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis abu hurayra dane inna la yatakallamu bil kalima mm-hmm. euh, min ridwanillahi la yulqi laha baalan yarfauhu llahu biha darajat wa inna al abda la yatakallamu bil kalima min saxti llah laa yulqi laha baalan yahwi biha fi jahannam nee na doomu aadama dina wax kàddu koo xam ni bàyyiwul importance su kàddu gi njëriñ gi ñu am yàlla gërëm ko ci daal di ko ci yëkkatil ay daraja dugal ko àjjana mais jaam bi dina wax kàddu koo xam ni du bàyyi xel danger bi ne ci kàddu gi yàlla mere ko ci mu am ci meru yàlla suñu borom subhanahu wa taala wàcceel ko ci ay daraja daal di ko ciy diiri tàbbal ko ci safara xadis boobu al imam Buxaari moo ko solo bokk na ci fitna yoo xam ne fitnay wax la fitnay wax yooyu nag bëri na mooy bépp jëf boo xam ne bépp at boo xam ne soo ko posé mën naa indi fitna mën naa taal fitna su boobaa baa nga ko moytu fitna yi fiil yooyu nag ba ca jiitu mooy fitnatu adami tawhid fitna gënta rëy ci ab julit wallahi ngay dund ci kaw suuf nangu woo wéetal yàlla sa xol yàlla sa làmmiñ wéetalul yàlla say cër wéetaluñ yàlla kooku fi gënu koo rëy ci nit yow ku la gën a am fitna ci kaw suuf amul ñi nga xam ne ay handicapé lañ ñi feebar ñi am yeneen natt wallahi ñoo la gën ñoo la tane. Mm. fii ak ñi ngi wéetal yàlla ñoo la gën yow bu dee ñi ngi wéetal yàlla ñoo la gën fuuf parce que fitna gën a rëy ñàkk a wéetal yàlla parce que ñàkk a wéetal yàlla kooku musiba la loolu moo tax ci wéetalul yàlla suñu borom dafa digle ne sax moom bu ñu amee doole nañ xeex ak moom waxtuluhum xaysu qiftumuhum wa axrijuhum min xaysu axrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl ba aaya ba jeex bokk na ci mooy ñaareel bi mooy fitnatul adu mooy fitna goo xam ne sa noonu la noon boo xam ne suñu borom da koo taggat ci yow moo ëpp la doole di la dóor di la tëj di jël sa alal di yàq sa alal ah di la espionner di la sonal di la saaga waaye di génnee say secret loolu borom di wax ne walladina na almuminina walmuminat bi gayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan wa isma mubina ñi nga xam ne ñoom seen mbir mooy noonu ak ñi gëm yàlla di leen lor ci seen làmmiñ ci loo xam ne fàgg wuñ ko ak di leen sosal ah borom nee na mbugal gu métti nekkal na bokk na ci fitna yooyu mooy fitnatul maal mooy alal fitna la innama amwalukum wa awlaadukum fitna léegooleeg seen alal yi ak li nga xam ne mooy seen njaboot yi fitna la am na koo xam ne alal ju bëri ji mu am tey moo tax nekkul ci jàmm mm-hmm. moo tax ñu koy liggéey nit ñu iñaane ko fu mu jaar ñu tibb tànkam tibb takkandeeram ah musuwaar bu mu sànni ñu gaaw jël pour bu koo liggéey parce que lu laal yaramam lan soxla ah pour daal di koy détruire ni ñu koy tuddee mystiquement moom lañ soxla. alors alal ji mu am la ko benn waay iñaane ne na dof wala na yàqu na tàggoog sagoom wala na doon leneen parce que alal ji moo tax alal jooju kon day mujj nekk fitna ci waa ji beneen bi am na koo xam ne alal ji mu am moo tax nit ñi soxoree ko alal ji mu am moo tax ñu koy sosal alal ji mu am moo tax ñu yàq deram kon kooku alal ji mujj naa nekk moom fitna waaye ki nga xam ne dafa am alal te alal ji dépensé wu ko ci yoon yàlla alal ji ci lan la mooy day dem grand théâtre la ko mën a baatare mënu koo baatare ci jàkka yi mënu ko baatare ci conférence yi mënu koo baatare ci daara alquran yi mënu koo baatare ci école franco arabe yi fan la ko mën a baatare mooy grand théâtre théâtre national Daniel Sorano foofu la ko mën a baatare fan la ko mën a baatare soirée yi dancing yi ainsi de suite foofu rek la mën a génnee ay xaalis di baatare di sànni deful ci yoonu yàlla ci kooku alal ji fitna la ci moom parce que alal ji dafa waroon nekk moyen bu mu yàlla mais mu alal ji pour mu mooy ci yàlla kon alal jooju mujj naa nekk ci moom fitna bokk na ci mooy fitnatul ahl bi ñu tuddoon sànq. mooy fitna gi nga xam ne fit lay fitnay njaboot la. fitnay njaboot nag ñetti xaaj la mooy fitnatul nafs mooy fitna goo xam ne yow ci sa bopp la léeg-léeg yàlla nattu la nga feebar comme ni yàlla natt woon yonent ci yàlla ayub moom feebar. rabbi anni masani durru wa anta arhamur rahimin natt ko mu feebar feebar gu métti ba muy ñaan suñ borom subhanahu wa taala ko koy teggil borom bi daal di ko koy daal di ko koy teggil fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min bokk na ci mooy fitnatul walad mooy fitnay doom ni ma ko waxee woon saako doom joo xam ni boo moytuwul moom ci kaso yi la dëkk yow soo moytuwul mu yóbbu la kaso dalay fayloo ay bor dalay fayloo ay bor day trafiqué ay këyit ñu ko ciy jàpp day jaay ay teere jaambur yow yaa koy fay doom jooju mujj naa nekk fitna ci baayam mujj naa nekk fitna ci baayam loolu ñu bàyyi ci xel loolu moo tax borom bi innama amwaalukum awlaadukum fitna Euh, loolu doy na ci xissa wala doy na ci misaal doomu ci yàlla nuux alayhi salaam doom ji ko weddi woon ànd ak yéeféer bu mbugal ma ñëwee euh, mu ne ko yaa bu na yarkab maana doom kaay ànd ak ñun yéeg mu ne ko sa aawi ilaa jabalin yaasimuni minal ma dinaa yéeg ci montagne boo xam ne moo may protéger ci ndox mi fekk yàlla lam nam moon mooy mu nap kooku doom ju bon la doom la joo xam ne baaxutoon loola léeg-léeg dafa am léeg-léeg fitnatu zawja mooy fitna koo xam ne jabaram mooy fitnaam soxnaam mooy fitnaam soxnaam mooy fitnaam moo koy tax bañ a nekk ci jàmm mooy tax du concentré wu bu duggee ci kër gi xelam dem bu gisee appelam tiit bu doon lekk bu gisee appelam suur bu doon nelaw wala muy waaju nelaw gémmentu bu gisee appel bi nelaw yi dem ilaa ax kooku mu jëna nekk ci moom fitna te nag soxna du woon pour loolu mm-hmm. li nu ilayha la woon li taskunu ilayha la woon mooy nga dal ci moom boo ànd ak dal ak tranquillité ci moom am apaisement ci moom hunna libaasul libaasul lahun daf laa dafay mel ni ci yow yére da lay protéger nga koy protéger daf lay sàng nga koy sàng mhm. noonu la waroon dem mhm. mais bu demee bu ñu nekk fitna ah doy na waar lool léegi nag soxna su bon fi lañ ko fekk loolu yàlla jox na ci misaal ci yonent yàlla noox mhm. yàlla jox na ci misaal ci yonent yàlla loot alayhim assalaam daraba allahu masalan lilazina kafaru imraata nuuhin wa imraata luut kaanataa taxta abdayni min ibadina salihayni fa xaanatahuma ñoom ñaar dañoo nekkoon ay soxna yoo xam ne soxna yi kilifa yu baax la woon muy ay yonent ñu war leen ñu war leen ñoom ñaar war googu ñu leen war suñu borom bëggal leen ci ba tàbbaleen safara moo tax mu jeexee ko wa qiila dxula naar ma addaaxilin ma addaaxilin bokk na ci fitna yi ba tey mooy fitnatul qawmiya mooy fitna goo xam ni mooy fanatisme par parloo ci wàllu nationalisme ñun nangam lañ gëm ay affaire u xeet gëm ay affaire u xeet ay affaire u yax bu rëy ay fii laa bokk man as ñun askanu nangam lañ ñun lan lañ te lépp li ngay wax lépp boo ko toppee ak keneen a keneen yëpp yéen a bokk benn maam muy maam aadam aadam moom ci turaab la ci suuf kon fëgg dënd yax bu rëy fii laa bokk amu fi inna akramakum at atqaakum yàlla moom mesure yi ngeen teg bu yeboo nga sant décent bu yeboo nga sant si bu yeboo nga sant siise bu yeboo nga sant mbàkke bu yeboo nga sant ñas yàlla ay sant kontul ci moom hmm. yàlla askan kontul ci moom deret kontul ci moom jege naa yonente bi kontul ci moom sori naa yonente bi kontul ci moom yàlla li compte ci moom mooy man amila saalihan min zakarin aw untha wa huwa mumin fa la nuxiyannahu xayatan tayiba yàlla liy compte ci moom mooy ku jëf lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen nga nga jëf lu baax te gëm yàlla woo mu'min mooy condition bi fala nuux yenn xayaatan tayiba dina la dekkal fële nga am dund gu tey te dal te baax mooy nga dem ajana waaye santal nu la neex kontewul fa yàlla dëkkal fu la neex kontewul fa yàlla fii laa bokk bokkal fu la neex kontewul fa yàlla yàlla lii compte ci moom mooy bokkal ci lislaam bokkal ci lislaam dundal ci lislaam askanowal ci lislaam te dundu lislaam comprendre lislaam di tasaara lislaam borom bi lii moo compte ci moom leneen lu la waaye wax waxi boppam la yàlla waxu ko te waxi boppam ya wax yàllaa ko féete kaw. Mm-hmm. loolu moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la bokk na ci ba tey mooy fitnatu shahawaat ñaari ñaari chiin yi nga xam ne Ibnul Qayyim day wax ne moytu leen ñaari chiin. Mm-hmm. ñu ne ko yan mu ne subuha shahawa ñaari chiin yi moytu leen ko lu bëri da ko yàqal nit mooy subuha ay lënt nit koo xam ni. foo fekk ay lënt lay wër même nit ñi da ngay gis koo xam ne masala masala yu raar rek lay laajte masala yu raar yi leer nañ yaa ngi fi te le moom sa amaana leerul ci boppam mais leer da ko fi bàyyi pour ñu ne gëstukat la boroom xam-xam la wala moom mi ngi yër wala moom mi ngi jokkoo ak borom xam-xam bi masala yi xaw a leer yi da koy bàyyi moom day fekk ci misaal masalatu zihar ñu ne góor goo xam ne dafa ñëw ne borom këram wala góor gu ñëw ne soxnaam su ma naratee séega yàlla naa séeg sama yaay xam boobu boobu àtte bi foofu la moom da ko fay bàyyi da ñëw naan la waa léegi bu fekkee jigéen moo ne borom këram su ma ne retee séeg yàlla naa seeg sama papa li leer li day xool contraire bi nu mu lëndamee mu jëm ko indi toujours noonu la huwa allazi nazzala alayka alkitab la yàlla wax yàlla moo wàccee ci yow bi téere boobu lan moo ci nekk minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa uxaru mutashabihat aay yoo xam ne yu leer naññi la yu leer yooyu ci cosaanu livre bi mais am na aay yu lëndëm yu lëndëm yooyu fa amma lazina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha min ngir ñaari mbir ibtigaa al fitna wa ibtigaa taawili wa ma ya'lamu taawilahu illa allah yàlla nee na aay yu leer yi ñi ngi fi ak yoo xam ne dafa xaw a am lu ci lënt te yu lënt yooyu lëntul ci ñëpp dafa am ñum lënt seen bopp mais ñi jàng leer na seen bopp lëntul seen bopp léegi bu leen dee sa bopp lan mooy condition bi mooy fas alu ahla zikri in kuntum laa taalamuun dellul ci ñi ko xam ñu xamal la ko comme yow xamoo ko daal sa bopp ñu mu leer ko leeral fas alu ahla zikri soo delloo ci ñoom ñu leeral la ko léegi bu ko bu ñu ko leeralee rek mu leer waaye borom bi am na ñoo xam seen xol dafa feebar ñu seen xol feebar lan la ñuy def fa yattabiuuna ma tashabaha min ñoom yu lënt yi topp ngir ñaari mbir ibtigaa al fitna taal fitna wa ibtigaa at taawili ak di ko wëlbati ak di ko wëlbati wallahi am na ñoo xam ni boo leen dégloo suba ba ngoon jot liñ nekk mooy wëlbati ay yàlla jublu ci fitna rek lañ ci jublu mm-hmm. loolu moo tax yonent bi alayhi salatu salaam mu ne ci hadis ya Aïcha bi nekk ci muslim iza raaytum allazina yattabi'una almutashabihat allah su ngeen gisee ñuy topp yonent yi moytu leen leen na ngeen leen moytu parce que ñooñu la yàlla tudd ñooñu la yàlla joxoñ bokk na ci ba tey mooy fitnatu ashahawat mooy fitnay bànneex am koo xam ne a a maîtriser bu gisee alal ba koo jël mënatul maîtriser foog mu jël jël lu mu moomut looloo ko sonal looloo ko sonal maîtriser wu ko bànneex yu bëri yi fi nekk yëpp muy bànneexu alal bu gisee alal jum yoo xam ni teg nañ ko ci loxoom mu sànk ko def ci bànneexu bakkanam suñ ko dénkee mu def su lebee du fay bànneexu euh, biir muy lekk moom lu mu def ba am lu mu lekk baax na bànneexu jigéen bànneexu sëy bànneexu euh, taaru àdduna jaral na ko lu nekk nekk loolu kooku bànneexam moo ko sonal léegoo-léeg lamb ji mooy tax du julli ji du dem jàkka ja léegoo-léeg match de football bi la léegoo-léeg programme bi am moo ko yitteel ba yoo koy sadd an zikrillah ñoo koy sadd ci tudd yàlla bokk na ci ba tey mooy fitnatu as-salihin mm. mooy yàlla natt la nga nekk nit ku baax wala ulama nekk nit ku baax wala nga am xam-xam am na koo xam ne tey li ko sonal mooy xam-xam bi mu yor loolu mooy fitnaam xam-xam bee tax ñu koy saaga xam-xam bee tax bu ubbee portable am ñu koy menacé xutba bii mën nga ciy waxal conférence bi mën nga ñun ngay gaaruwaale ainsi de suite di yónni ay nit joxe numéro ñu koy woo di ko saaga di ko menacé léego-léeg mooy tax mu ñëw fekk oto sax ñu koy tiital toj fa ay nen sànni fa ay deret bopp ginaar tànk ceeli yépp ñu ko fay def pour lan tiital ko lan la mooy xam-xam bi ne ci moom la li muy jéem a baax ak bëgg baax la ñu ne ko doo ko fi defee loolu moo nekk fitna ci moom ba ay nit may ñu ko jàmm loolu moo tax léeg-léeg ay nit jënd émission émission jënd émission rajo saaga ko jënd émission télé toog sosal ko yàq deram ngir lan ngir xam-xam bi ne ci moom xam-xam boobu moom moo mujj nekk fitna fitnaal ay nit ci moom ba ñooñu mu jaral leen lu nekk mooy xam-xam bi nekk ci moom ak lu leer li muy jàllale na ko bàyyi su ko bàyyiwul dina sonn dinañ ko sonal loola tey am na tey mm-hmm. loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ni biñ ko laajee ci hadis Saad bin Abi Waqaas bi ne ci Tirmisi ci càllale bu wér ayu naasi ashaddu bala kan ci nit ñi moo gën a métti nattu xaala al anbiya summa al amsalu fal amsal mu ne yonent yi topp ci ña gën a mel ni yonent yi maanaam ña gën a baax gën leen a jege topp ci ña ca jege mu ne fa yubtala fa yubtala rajulu ala hasabi diini nit ki dañu ko nattu selon fu diineem toll fa in kaana diinuhu salban ishtadda balaahu ci diineem dëgëree natt bi day gën a métti nee na in kaana fi diinihi riqa ubtuliya ala hasabi diini su su diinam oyofee ñu natt ko woyofaayu diinam fu mu toll mu ne fa maa yabrahu lbalaau bil abd natt du deñ di topp jaam bi ñu koy natt ñu koy natt hatta yatrukahu yamshi ala al ard maa alayhi xatia yàlla dina téye jaamam di ko natt natt yi tegaloo ba muy dox ci kaw suuf te amatul bàkkaar fekk natt yi ñoo raxas bàkkaar yi ci moom loolu mbokk yi tuutiwul hmm. moyens yi nga xam ne moom la ñuy taalee fitna mooy yooyu bokk na ci làmmiñ mm. làmmiñ paaka ñaari boor la mm. làmmiñ mën na jàng alquran mën na tudd yàlla mën na defar ay diggante mën na ja mën na digle lu baax mën na tere lu bon mën na waaraate mën na jàngale loolu lépp làmmiñ mën na ko mais làmmiñ bu deful loolu safaan gi lay def am na koo xam ne làmmiñam mooy tax mu dugg àjjana am na koo xam ne làmmiñam mooy tax mu dem safara yonente bi alayhi salaatu salaam bi mu wax ma Muaz yi ko Muaz doon laaj ci mën a dugal nit àjjana yu baax bi mu ko waxee ba pare jihaad julli nangam dana ko Muaz génne làmmiñ bi téye ko moom yonente bi ne ko téyel ma lii mm-hmm. mu ne ko waaw lii mu ne ko waaw ndax kon dañuy suñu làmmiñ li ñuy góob mën nañoo tàbbal safara ndax mën nañoo tàbbal safara mu ne ko Muaz yàlla na ñàkk kooku waxin la ci arab ni ngay ne ko yàlla nga dee est bëgg mu dee kooku xabarun bi maanaa du'a du'a bi maanaa xabar la ñaan la goo xam ne jubluwuñ ci ñaan gi mais xabar lañ ci jublu moom it li mu wax noonu euh, euh, du'a la bi maanaa xabar yonent bi jubluwu ci yàlla na dee wala yàlla ko yaayam ñàkk waaye kooku arab yi wax guñ doon waxee la comme ci wolof da ngay waxee yàlla nga dee fekk na mooy nit ki li mu wax dalaa jaaxal wala li mu wax li nga ko wax comprendre nga ne ko yàlla nga dee yonent bi loolu la wax Muaz gis nga làmmiñ dafa dangereux tey bëri waa koo xam ne làmmiñam moo tax mm-hmm. ñu dàq ko école daa wax ba wax lu ëpp am na koo xam ne làmmiñ moo tax ñu daax ko fa mu doon wax ba wax lu ko wóorut wax lu ñu daax ko fa am na koo xam ne làmmiñ moo tax koñ bi mu dëkk xajatu fi mu doxu dafa wax ci koñ bi lu ne weng loo xam ne moo tax mu buubi bagaasam am na koo xam ne làmmiñ moo tax ku mu seen jàdd am na ñoo xam ne ñemewul dajeek ñoom bu leen seen a jàdd parce que dafa wax ci làmmiñam ci ñoom loo xam ne ñemeetul jàkkaarloog ñoom làmmiñ dañ koy contrôler dañ koy téye membre bu am solo la mais membre bu dangereux la bu am solo la mais bu dangereux la bu mën a defar bu mën a yàq la bu mën a jaamu yàlla la bu mën a weddiloo nit ki yàlla la ñu bàyyi ci xel bu baax loolu moo tax nit ki na bàyyi xel ci làmmiñam wallahi làmmiñ tax na kër tas làmmiñ tax na ay réew di xeex mm-hmm. dañuy nettali ci histoire bi ne fa am benn jigéen bu am jànq ci kër jànq bi làmmiñ bi garaaw lool mu daal di koy dàq mais dafa kenn dàq ko liggéey mën na liggéey lool bi mu koy dàq benn xaritam ñëw ne ko yow sa jànq bi anamu mu ne ko jànq bi de ma koo dàq mu ne ko lu làmmiñ bi la mënta téye mu ne ko yow sa jànq bi ni mu mënee liggéey mu ne ko yuu na dem rek mu ne ko kon de man dinaa ko jël daal di contacté jànq bi jël ko yóbbu këram jànq bi dafa mën liggéeyam mën na togg mën na raxas mën na fóot mën na bale lépp la mën mais jànq bi comme lan ñu dafa garaaw mu daal di ñëw ci soxna si ne ko yow sa borom kër day guddee wàcc te li muy dox dafa bëri kii soo ko bëggee contrôler soo ko bëggee contrôler da ngay fexe ba amal ma ci karaw bopp bi wala ci karaw ci karaw sikkim bi soo ci daggee jox ma buy nelaw dinaa ko yóbbu foo xam ni yow loo bëggati ci moom di nga ko am ba pare euh, amatoo looy tiit ci sa dund boroom kër gi wàcc euh, reer ba pare mu ñëw di fomp ñëw ba ci wetam na ko na de sa si tey ni ma ko gisee su ba léegi dafa jax dafa mer te gis naa ko nag muy daas paaka di ko denc borom kër gi dem tëdd nelaw mais gëmut ne wala nelawut boog di bàyyi xel ndaw si ndaw si jàpp ne boroom kër gaa ngi nelaw mu jël paaka di yoot pour dagg ci karaw borom kër gi jóg téye loxo bi xëcc ak moom paaka ba ñu songoo ci ndaw si daw génn daw dem ci mbokki ku jigéen ki ne ko bu ngeen yéexee seen doom dee moo diw dañuy xeex ci sonal na dóor na ko ba mu sonn te bu ngeen yéexee dana ko rey waa kër gu ndaw sa bàbbeeku daw ñëw gàddu ay ngànnaay pour ñëw jàppale seen doom sot mu jógee fa daw dem ci kër ku góor ka mbokki ku góor ka ne ko bu ngeen yéexee seen doom dee mook jabaram dañ doon xeex mbokki soxna sa dugg nañ ca sonn na nag su ngeen yéex muy dee ñooña bàbbee ko gàddu ay nangam daw ñëw ñu tase fa xeex bi di jolli loolu lan moo ko indi làmmiñ làmmiñ lu garaaw la moo tax nit ki war a bàyyi xel bu baax ci li nga xam ne mooy làmmiñam eh, ñaareel bi mooy loxo loxo bokk na ci moyens yi nga xam ne mën na taal fitna ci naka mooy nga bind nga bind lu dul dëgg bind yàq der bind accuser nit bind tuumaal nit bind loo xam ne du dëgg yàq deru benn waay loolu mën naa taal tey ñu bëri ñu ngi bind ay livre yàq deru nit ay livre sosal ay nit rawatina ahlu sunna li ngeen di sosal tey ci ay bind ci ay article ci ay journaux ci ay site internet ci ay page Facebook kenn xamul nu mu ah, loolu mën naa taal fitna bokk na ci mooy lu ñu tuddee les NTIC les nouvelles technologies de l'information et de la communication gis naa moyens yi bëri fi loolu tey lii ni mu baaxee noonu la mën a yàq mën naa taal fitna benn waaye filmé léegi léegi léegi ne diw ak diw ñooy xeex wala carte diw ak carte diw mbokk yi daw ñëw bokk si dañu dañ suñu waa koñ lañu attaqué ñu daw ñëw te dara du ci dëkk benn waay mën naa filmer léegi léegi benn waay wax ay saaga teg mu ne diw lay saaga te saagawul diw gars yi dem soo ngi diw te tuddul tur sax de mais loolu rek lay tasaare wala benn waay wax benn benn mbir benn conférence wala benn xutba ñu dagg ci benn parti titre ko diw taakal sévèrement diw te taakale wu ko sévère wu ko léegi gars yi la jóge fële ne comme dafa koy taakale sévèrement ñun loolu mën a jur musiba bu rëy rëy rëy te loolool moom tey moom la ñuy dund lu mat a bàyyi xel la technique yii moyen de communication yi bees yi dafa bokk ci li mën a taal fitna tey bu baax a baax a baax bokk na ci euh, yi nga xam ne nag dafay sabal fi sabab fitna nga xam ne daanaka moom la ñuy jeexale mooy aljahlu mooy réer fitna fu mu bëri mooy ak réer dafa am nit ku réer kuy wax lu mu ko kuy wax lu xamul ku maîtriser wul la may wax la muy wax wala ku xam dolli ca ku xam di ci dolli te sénégal yi loolu bëri na ci mooy wax ba pare fi point final bi yam nga doole nga demaat à la ligne indiwaat beneen phrase te pourtant wax li nga wax fa jeexee ma foog nga yokk ci boo ci yokkul du saf bokk na ci mooy am na ñoo xam ne ñooy tey ñooy tey taal fitna ñoom dañoom intention na fitna tàkk kooku mooy at taamut mooy tay ko na fitna am dañoo bëgg fitna am ñuy ñuy def lu tax fitna war a am kooku ci liñ war a moytu la bokk na ci nag ak naafiq nifaaq naafiq fu mu am fitna dafay am nit ku naafiq société bu naafiq société bu hypocrite fu mu am monde bu hypocrite fu mu am ah fitna day tàkk te loolu moom la ñuy dund tey nit ñi naafiq da cee bëri société bi naafiq da cee bëri hmm. mais au niveau international tey dafa am lu ñuy tuddee une hypocrisie internationale mooy ak naafiq boo xam ne bu international loolu li koy gën dëggal mooy tey terrorisme jullit rek lay doon ab terroriste jullit rek lay doon hmm. terroriste jullit rek lay doon terroriste mënul nekk juif mënul nekk chrétien léegi si le mot terrorisme c'est le fait les gens physiquement et mentalement terrorisme mooy tiital nit xoxotal nit ci mentalement wala physiquement léegi loolu koy donc le terrorisme n'a pas de religion amul religion wala déet nii une nationalité amul nationalité waru am nationalité hmm. mooy jëf ji la ñuy xool mooy ku xoxotal nit ku ko tiital jullit nga wala yéefar nga terroriste nga wala déet mais su dee su dee jullit la terrorisme la su dee du jullit juif la wala chrétien acte isolé la wala leneen ak leneen li ñu koy tuddee mais duñ ko tuddee loolu bokk na ci li nga xam ne mooy ak naafiq naafiq day jur fitna parce que day indi xool yu tàng indi ay frustration indi ay mer nit ñi jéem fajal seen bopp. Mm-hmm. loolu bokk na ci li nga xam dafa indi fitna bokk na ci aussi mooy taral gu ëpp. nit ñi boo taralee seen kaw taral gu ëpp gu métti dañuy fippu. Mm-hmm. dañuy fippu sa kaw taral googu moo xam ci xam-xam la taral googu moo xam ci côté gouvernance la ci wàllu administration ci wàllu aduna. Mm-hmm. bu yàggee dañuy fippu fitna dafay am ëppal ak taral baaxul loolu yonent bi alayhi salaam waxoon ni halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un ci hadis Abdullah ibn bi ne ci sahih muslim ci kitaabul fitan mu ne alkuna alkuna alkuna ñu ne ko ñan mu ne ñi nga xam ne dañuy teengal dañuy méttal ci nit ñi bokk na ci li mën a jur fitna mooy iñaan nit ku iñaan soo nekkeek moom boo dund ak moom pour nga mucc ci fitna day jafe loo def mu iñaane la sa dara baaxul du gis lu baax daf lay soxor la iñaane la lu gën a réussir nit ñi di la féliciter kooku pour nga nekk moom dund ak moom fitna dafa yomb bokk na ci mooy nit ku dul doylu ak tama mooy wal jasa fu xale ak bëgg bu ëpp nit ku mel noonu su ngeen seqee dara boo bàyyiwul fitna day am bokk na ci ba tey mooy at bi bil axta il maadiya mooy nit koo xam ne dalay fàttali toujours yi fi defoon daaw ak daaw jéeg yi fi defoon daaw ak daaw jéeg soo jéemee baax sag baax mënu ko nangu loo am ci lu baax mënu ko nangu moom mi ngi xool daaw ak daaw jékk yaa fi meloon nangam yaa fi nekkoon rapport nga naan léegi da ngay waaraat yaa fi nekkoon xaw ma lan ak lan nga naan da ngay nangam ah ah yow barki dem nga tu yaa ngi jékki dine chrétien ñëw dugg ci l'islam léegi nga ne borom xam-xam nga loolu mooy la Firawna waxoon Moussa alam nu rabbika fii naa walida yow xale bu ndaw nga ñoo la fi yar barki dem boo njaay Moussa nga dem jékki-jékki ñëw naan léegi yàlla la yónni bokk na ci mooy achatmu awi taanu fil ansab mbokk yi saaga saaga te saaga jëfu kàccoor la yonent dane sibaabul muslimi fu suux saaga ab julit kooku fisq la kàccoor ab kàccoor mooy saaga saaga saagante buñ koy jiic ab société day indi fitna te léegi jeunes yi waxuma la jeunes yi mais mag ñi sax léegi saaga comme comme comme comme kom comme nuyoo la da ngay romb ay mag ñi toog di saagante ay xale saagante dugg oto nit di saaga nit téléphone nga day koy saaga dugg ci boutique jënd gis koy saaga grand place gis koy saaga dugg restaurant gis koy saaga foo taxaw saaga mel ni saaga lu baax la mm-hmm. te saaga nit ñu yées ñi ñu bon ñi ñoo koy def bokk na ci ba tey mooy jam nit ci seen askan yow jaam nga ñeeño nga yow nangam nga yooyu baaxul ñeenti bi alayhi salaam dafa wax ne loolu ci mbirum ceddo la bokk mooy at taanu wa tafaaxur bil ahsaabi wal ansaab bokk na ci mbokk yi mooy xeebaate réew bu xeeb moroomu réew mën naa indi fitna nit ku xeeb moroomu nitam mën naa indi fitna xeebaate ci lislaam baaxul bu dee nag tomb bi nga xam ne moo mujj mooy effet fitna ak nu ñuy mus la mus nu ñuy muccee ci fitna bu dee effet yi mooy fitna ay asaaram asaar wa xiima la mooy métti la yu day waar la kenn xamul fu mën a toll fu dul yàlla réew yi fooyee woon seen dëkk yi fooyee seen dëkk wala réew yi fooyee seen réew ba dëkk ya tàkk mhm. ngir mbirum diine wala mbirum askan wala mbirum xeet wala boot di yeneen tey ñu ngi wër ci ay dem ci ay réew pour ñu jubóole leen ñu ngi dem ci ay conférence internationale dem ci ay colloque international yeneen réewi jàmbur ñoo ñëw di leen jubóole ñoom ñu bokk réew ma di leen jubóole di leen jéem a fexe ñu àndaat seen économie daanu na seen i infrastructure seen i université tàkk seen batiment bâtiment daanu seen ministère yàqu seen i mairie seen i lépp amatuñ lu baax war a commencé waat à zéro war a demaat kon loolu li muy indi mooy lu mën a yàq lool la ay banque daanu ay réew daanu borom ñi nekkoon alal mujj nekk ay pauvre ñi pauvre woon di gën a pauvre xam yi sànku ñi amoon xam fitna yi yóbbaale leen ñu dem su ko defee ñu mën cee jëlee bu dee guerre ñu mën ci jëlee ay nit ñu am bët yu pat ñii ay nopp yu yàqu kii am tànk bu dagg kii am loxo bu dagg ay nit ñu jëm ay bal ay nit ñu gaañ kër jaambur yu ñu yàqu magasin yu ñu siif ainsi de yooyu yëpp fitna daf koy indi. Mm-hmm. su ko defee nit ñu gën a delluwaat ginnaaw mbokk yi li ñuy musloo musee ci fitna mooy ba jiitu mooy muñ as sabru moo li ci jiitu fitna moom jullit bi lu mu métti innamaa yuwaffa saabirun ajrahum bi xayri xisaab la yàlla wax nit ki su xamee loolu ne lu métti su ma koy dund di ko muñ suñu borom dafa ma ciy fay tuyaaba kon day jàpp ne muñ gi ma koy muñ ibaada la jaamu yàlla la ñaareel bi mooy teey li nga xam ne mooy rumeur yi ak information yi dañuy ci vitesse boo xam ne double vitesse lay da ngay dégg fii dégg fee teeyal boo teeyul wax loo warta wax def loo warta wax commenter ci loo warta commenter ah tasaare soxla warta tasaare information yi comme ak am nii ci whatsapp yeeg telegram yeeg gars yi dañuy copier coller yow bala ngaa lire copier coller ki nga ko envoyé balaa moo lire copier coller hmm. copier coller yi tasaaroo ba ñëwaat ci yow ñu copier coller waat ba coller la ko yow su ko defee affaire bi di wër te kenn xamul information bi fu mu jógee ku ko tasaare ku ko bind dëgg la wala du dëgg ndax day yee fitna du yee fitna day yàq deru nit yàqul deru nit lijjanti wuñ ko loolu moo tax teey gi dafa baax in jaakum faasiqum bi naba'in fatabayyanu bokk na ci mooy al saf mooy léeg-léeg nit ki nga jekku ko waaye soo soo jëflanteeg moom après mën naa jur ay fitna su boobaa li gën mooy nga daal di koy nga daal di koy baal fa man mm. afaa wa aslaha fa ajruhu ala allah ku jekku nit te baal ko te jéggal ko mm. yàlla dina la fay tuyaaba gu métti tuyaaba gu bëree bëri bokk na ci mooy dund alquran ak sunna ci sa dans sa globalité mm. mooy dund ko ci pas-pas dund ko ci jaamu yàlla dund ko ci jikko dund ko ci jëflante ah dund ko ci biir dund ko ci biti bañ a bañ a bañ bañ a cof dara wala bañ a tànk ci biir tànk ci biti su ko defee fii day baax fii bon loolu yàq lu bari bokk na ci mooy sori aay yu lënt yi ci topp li nga xam ne moo itibaa al ayat al muhkamaat bokk na ci itibaa al ulama wal umara fil maaruf borom xam-xam yi ñu am ñu topp leen ci lépp loo xam ne lu baax la njiit yi am ñu topp leen ci lépp loo xam ne lu baax la borom xam-xam bu wàcc yoon kenn du ko toppati njiit lu wàcc yoon kenn du ko toppati bokk na ci ba tey mooy xër li nga xam ne mooy aljamaa mooy xër ci mbooloo gi ànd ak dëgg xër ci moytu lépp loo xam daf koy daf koy daf koy tàqale bokk na ci aussi mooy muhaarabatul mufsidin mooy xeex yàqkat yi ñi nga xam ne seen wax yàq la seen xalaat yàq la seen jëf yàq la seen bind yàq la acte yi ñuy posé yàq la ci yàq la ñuy xëy ci la ñuy fanaan ci la ñuy goon ci la ñuy yendu ñooñu dañ leen a war a topp bu ñu waxee lu yàq ñu tontu leen suñ bindee luy yàq ñu tontu leen buñ tasaaree luy yàq ñu tontu leen waruñu leen a bàyyi ñuy am liberté parce que ay yàqkat lañ société bi ba yàqkat lañ ci li nga xam ne moom mooy société mbokk yi société boo xam ne moo la gën a néew ay fitna moo la ëpp al am na wala istixraar moo la ëpp stabilité ak tranquillité mm-hmm. mais société boo xam ne moo la ëpp fitna moo la gën a ñàkk li nga xam ne mooy al amn wal istixraar muy stabilité ak tranquillité wa axiru daawaana an alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain jazakallah wallaahi tënkoon na waxtaan bi ci commencement bi ci hadisu muslim bi yeneen bi ne gaawtu leen baadiru bil amali salihati gaaw leen yeneen bi septième siècle la toog mu gis tey lii lu nar mu naan lu gaaw leen gaaw leen baadiru yow bi ci lan la gaawtu mu ne bil amali salihati gaaw leen ci jëf ju baax lu nit def lu ci lu baax mu ko xeet waaw lu tax loolu yow yonent nga ñuy soññ ci jëf yu baax naan nañ ci gaaw mu ne sa takunu fitna musiba li ñëw fitna li ñëw ka qitaa i laylil muslim mi ngi mel ni daggitu xaaju guddi une heure ci guddi courant amul mu lëndëm deux heures du matin trois heures du matin mu lëndëm ñuul ko yonent bi nee na fitna bu mel noonu moo ngi ñëw lu tax yonent ne da ngay gis ku xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk yéefé lu tax parce dafa nekk franc-maçon benn waay te doon waxtaanee nijaayam mu ne ko nijaay jullit bëreetul léegi nijaay yi ne ko yéen da ngeen a yabaat da ngeen yaakaar ne yéen a génne jullit mu naan ko wallaahi nijaay jullit bëreetul mu naan ko wallaahi da ngeen a yabaate da ngeen yaakaar ne yéen yéen yéen mu ne ko nijaay xaaral xaaral ma war na ni jullit bëreetul rek jël mu composé waaye dafa dugg ci site franc-maçon yi mu gis ay numéro ay nit yu bëgg nekk franc-maçon def demande di xaar ku leen moo ren ñu jël benn numéro rek mu def main libre opal portable am mu ne jaay gëjul mu ne yow la diw portable bi sole mu ne yow la diw mu ne waaw mu ne ñun franc-maçon yi ñoo la doon wa waa ji ne alhamdulilah rabbil alamin bu leen ree musiba la place bi du place bu ñuy rey sànni ku nar a bàyyi diine bu dee dee dem safara ko kenn du ko ree nijaay déglul nijaay bi déglul mu woote mu ne ko diw danaa bàyyi woon sa sa numéro ci site franc-maçon yi mu ne waaw mu ne ñun ñoo lay contacter mu ne alhamdulilah te ah waaye yow de dañoo jël nangamu nit yow dañ la cee boole ñii ñu jël nag nangam lañ leen di jox et eh, est-ce que di nga bàyyi lislaam mu ne xoolal maa ngi nii ci uti jàkka li ñuy nodd waaye léegi dootuma dugg loolu du firnde li yonent bi kon wax ne nit day xëy. yusbihu rajulu muminan wa yumsi kafiran lu tax waa ji bëgg a nekk yéeféer parce que alalu àdduna alalu àdduna jaay na diineem mu ngi ñu bëgg a nekk franc-maçon waa ji suñ la fayee lépp luy islam da nga koy ci suuf mu ne ko mane su ngeen bëggee sax ma changé sama tur man kay na ngeen ma fay rek kon yonent bi lu mu waxoon ñëw na wala ñëwul kër moom góor la bëgg a nekk te ab jullit la woon kële diin la bëgg a nekk kële mbandikee la bëgg a nekk kële nangam la bëgg a nekk aw rapport kee ñooy ñoom lu tax ndax dañuy jaay seen diine lu tax ci lan lañ koy jaay ya rasulallah mu ne ci poñetu adduna ci alalu adduna alalu adduna tey ñun ñi ñëpp alalu àdduna moo nu jàpp ba mënuloo dem ci yàlla alalu àdduna moo nu langaamu kenn ku nekk ci ñun li mu doon wax léegi léegi ci fitna ñu bari ci ñu dañ yaakaar ne ñoom nekk ñu ci fitna ah kay xanaa xamuloo ne yenn saa yi sax mbax ne bi nga bëgg a takk sa bopp bi daf lay indi fitna xanaa xamoo sax yenn saa yi kaala bi daf lay indi fitna xanaa xamoo yenn saa yi sax mbub mi daf lay bëgg a indi fitna. xanaa xamoo sax yenn saa sa portable bi daf lay indil fitna xoolal li wax léegi ci réseaux sociaux yi loolu ñaata fitna moo ci nekk yoo xam ne du jeex kër yaa ngi tas njaboot gi di tasaaroo ci lan fitna wax na léegi léegi ndeysaan ci wàllu sëy ci aaya bi mu ngi wax ñun jullit ñu foog ëllëg yàlla duma waaw jullit dinaa wax ne xam ngeen lu tax yaa dafa jox alxuraan ñu dégguñu ko. liñ ci dégg mooy te di jooy di di loolu lañ ci dégg xoolal ci mbirum sëy léegi borom xam-xam yi ne ñaar dafa bind aadama bisu àjjuma mu dugal ko aljanna mu xar faaru góosam mu génne ci faaru góosam mu génne ci Hawa kon mu ngox leer na ñu lan moo tax génnewu ko ci bopp bi lu tax génnewu ko ci tànk yi mu génne ko ci wetam ci gauche bi lu tax lu su ko génnee ci bopp bi kon jigéen day nekk supérieur góor da koy tiim di def lu ko su ko génnee ci tànk yi day nekk jaamam góor di ko nappaaje moo tax mu génn ko ci wetam pour mu nekk ci wetam di ko jàppale xoolal suñu lay dénk dañ naan la na nekk sa wet na nekk sa wet jàppale ko xool ko képp kuñ lay dénk ci àdduna dañ naan nga nekk sa wet yàlla daal di indi jigéen mu ne nga nekk sa wet yow góor li taskunu ilayha pour ngeen am ci dal wa jaala baynakum mawaddatan wa jaala baynakum mawaddaak wa rahma suñ demee ba ay bëñ di deñ bët di tuuru bakkan di tëj ay nan mawadda wa rahma ay na mawadda wa rahma nan xoolaat suñu bopp waxtaan bi ay asaar la yu am importance ba mu jeex tak benn point par benn point boo jël su jëloon fitna kër rek loolu dong doon na doy fitna suñu kër yi fitna suñu njaboot tey xoolal ñaata nit ñoo dund ñoo judd ci sunna nekk ay repeur ñaata nit ñoo juddu ndeysaan léeg-léeg ma wax ne ñun accident bu garaaw moomu dal ñun tey jii suñu njaboot ñun li ñu dal warul woon dal suñu njaboot ñun li ñu mais maa sax ñun noo ko imaan sax léegi suñu njaboot du ko waral mooy fitna fitna fitna moo tax kon doomu nay ñu bàyyi xel baax a baax baax bu ñu dem conférence rek yow daal ne mbooloo mi bëri na bone salu bi nangam nangam na nañuy jël liñ ñuy wax ñu koy jëfee li ñuy dégg kenn ku nekk ci ñun tey soo lotee benn point soo demee boo ko jëfee mu am njëriñ benn point benn point waaye maa la sax ndeysaan affaire yi day mel ni ci ñun day dugg nopp ndeyjoor génn nopp càmmoñ dem dem yoonam dañ leen xoolaat suñu bopp fitna yi yonent bi doon wax pour ñun ñu mucc ci la fitna su bàyyiwul nit wax na ko léegi yow mal safara la la loo xam ne nag yow mal xiyaam dana yóbbu safara kon soo ko xamee war nga cee a baax a baax nga dégg ko ci say nopp nga matt ko ci ak say dëgg addu alayha bin nga dégg ko ba pare mu dugg ci nopp nay joor génn ci nopp càmmoñ boo léegi-léegi ba muy fitna ci xolal eh, ma ne ko benn waajo moo ñëw bëgg a nangu suñu jàkka bu ko def kër ñaata at ñuy xeex ak may ah suba sax dañoo am rendez-vous ak préfet ci loo xam ne tracé nañ ko ba pare jox nañ ko ñaari kër ñaari kër lañ ko jox de ne ko jëlal bii nga tabaxe bii te léegi ba léegi waa ji bàyyi wu ñu xam ngeen lu tax nee na ay ibaadu lañ du ma leen ay ibaadu lañ ba dugg boîte ay ibaadu lañ fan lañ jëm fan lañ jëm kon doomu ndey yi nañ leen takkaat kaala yi seen téerewaat tubé yi ñu xam ne fii ñu nekk jihaad ba may daanul fitan dañuy sax fitna ba ba ñuy dem ci yàlla du annaas an yutrak wa an yaqulu amanna wa hum wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna allahu kon yàlla indi test foog yàlla nattuñu léeg-léeg nga jóg ba nga dem ci yàlla benn crème benn benn poudre poudre maquillage moom mooy yow da ngay génn te maquillé woo di laa ilaha illallah gis nga fit na ñëw na nga daw delluwaat léeg-léeg nga bëgg a génn ah benn seytaane ñëw yàlla nee na test foog mu am test ndax ñi démb sahabatul kiram yonent yi alayhi salaam yàlla da leen a nattu woon seen i jabar seen i njaboot nettali na ko xoolal ku toll ni Nuux jabaram ku toll ni Nuux doomam ku toll ni Lut doomam ngeen defa ne dina natt yonent yi mu bàyyi damay laaj ndax yàlla dina natt Nuux bàyyi nunu te yi ñu bàyyi xel fu ñu nattoo Nuux nattoo fa Lut xam ngeen ne nattoo fa sahaaba yi nattoo fa yonent yàlla Muhammad ndax ñu dana nu bàyyi kon nag nañ leen xoolaat suñu bopp nañ leen seetaat suñu bopp bu yaakaar ne li ñuy def ni xoolal te ñun kat lii yëpp ak fitna bi ñu grawee ñun dañoo yaakaar ne ñun rëcc am na suñu ñoo xam ne yaakaar nañ dugg nañ aljanna ba pare ñoom ñu ngi al ala ak yeneen yi ndeysaan waaw ñoom moom allahu akbar ya Moussa la taaman makri hatta tara nafsaka fi janna allahu akbar takbir yeneen ci bi waxoon na yéen yàlla Moussa yéen waxoon na yàlla waxoon na Moussa eh Moussa mu ne ko waaw sama borom mu ne ko bul wóolu sa bopp bul wóolu ba ba ngay gis sa bopp biir aljanna Aboubacar Saddiq mu ne su ma déggoon ñu ne ñëpp dugg nañ aljanna dina la kenn mu ne dinaa tiit defe ne ndax ma ko Umar nee na su sama benn tànk ndeyjoor duggee càmmoñ bi duggagul. wóolooguma wóolooguma wóolooguma ñun nag wóolu na ñun. ndeysaan ñoom ñu ngi si dox dañuy seetaat suñu bopp maa ngi jégalu guddal naa trop. ñu jox suñu la day fàtte incha allah.